salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa Sénégal man Bass Bari Bagage ah tey nag maa ngi fii ci marché Ocass macha allah site bi ngeen xam ni nee naa la sénégalais yee ko bëggal seen bopp taama ko muy 24 actu macha allah ñuy def liggéey bu rafet depuis corona bi bi mu commencé ba léegi. tey nag maa ngi fii ci bitigu soxna May Galas man bas fi may liggéeyee macha allah di xool ba xam gars yi nu toogee ci corona bi ba xam tissu yaa ngi dox wala doxul wala lan daan jaay ñi koy jaayam déet kon bu ko defee. sama cameraman da nga may topp rek maa ngi fiy toog ak fii sëñ Thierno macha allah ma laaj ko ni mu demee sëñ na nga def. ñi ngi sant bu baax a baax a baax di la di la remercier Bass Bari Bagage di la nuyu di la jaajëfal di la ñaanal jàmm nag ci site bu bees bi nga nekk li nga ci bëgg yaa ko xam yàlla na ko suñu borom defal. mais li ma lay laaj lenn rek la maanaam fii may liggéey man bitigu soxna may galas mën naa ko waxal sama bopp waaye waaye yow yaay bàyyi nga waxal ma ko maanaam ndax njaay mi ni ngeen daan jaayee yéen a ngi koy jaay ba léegi wala période bi mi ngi dox nit ñaa ngi jënd si par benn benn wala nu mu demee noonu seen côté. njaay mi moom taxaw na kàkk ni lépp taxawee moom la njaay mi taxawee du làmb du sport du football du dara lépp a taxaw dëkk bi boole ci naqari ñu nekk ay borom kër nag fa tabarkàlla macha allah yaakaaruñu lu dul marché occas man mi ngay gis ni di wax ak yow sama dépense fii laa koy lijjante ci marché bi kon tey jii buñ ñu xëyloo maanaam di nga maam huit heures di ñu wàcciloo trois heures loolu fitna la ci askan wi sonn nañu lool jaaxle nañu ku amul sonn nga ku am jaaxle nga ah waa Thierno li nga wax leer na ci ay nopp vraiment mën nañu koo dégg dëkk bi moom fi ne nii ñun géwél yi sax ci ñun la gën a métti boo bëggee dégg-dégg moom métti na lool waaye nag yàlla na ko fi sëñ Touba jëlee waaw kontaan nañ lool ci euh, li ñu leeral macha allah man mi fi liggéeyee sax xam naa ci dara ndax fii da nga toog ba ngoon jot doo gis kenn kuñ la jaay ma voile brodé te loolu metti na. barki démb su ma juumul boutique bu toll nii 3500 lañ fi jaay te yaakaar naa ne sama collègue bee moo ko jaay Modou Mbacke Lo Je dis au président, je lance l'appel au président Macky sal que nous vivons mal ici au marché Ocas. Nous vivons mal. Il n'y a pas électricité, il n'y a pas courant, nous ne mangeons pas et nous avons des enfants. On On appelle au secours au président de la République et eh, président Macky. Aidez-nous. Si vous venez trop tard, nous allons mourir. Pardon, donnez-nous à manger. Il n'y a pas courant, il n'y a pas manger, il n'y a rien. Nous restons comme ça seulement. waaw kon bu ko defee nag ñu ngi woon fii ci bitigu Soxna May Galas macha allah kaddu yu leer na nañ sëñ Thierno kontaan nañ def na ko olof def ko français kon loolu na ko ñëpp dégg na noonu macha allah bu ko defee damay doxantuwaat ba ci yeneen commerçant ak ñi du ma xeeb sax ñi nga xam dañuy dox ci bi macha allah waaw. salaamaaleykum sama yaay. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu. waaw dañ lay laaj marché bi maanaam noo gisee corona bi ak maanaam ni mu taxawee nii ak ni ko nit ñi waxee yow noo ko dundee sa côté. ah xanaa sant yàlla bu baax rek. julli ci yonent bi. nga xam ne suñ boroom moom subhaanahu wa taala moom lu mu dogal kenn mënu ca leen yàlla nañ ko dugg ceeg jàmm génn cee jàmm suñ borom defal ñu ci xéewal musal ñu ci balaa bi musal ñu ci lépp luy ndog daraje seexul xadim mi tax ñu toog fii ndeysaan loolu loolu waaye mais yow la nga daan xëy di jaay ñaata par exemple daan nga wàccaale ñaata wala macha allah bu njëkkoon ak léegi nii njaay mi wute na wala nu mu demee noonu daal. waaw ah, loolu moom bas moom xam nga ne ute na moom wax dëgg yàlla ndax boo xëyee doo soqee ko waaye na dañuy sant yàlla rek ndegam yàlla may ñu fekke ko ba mën a toog di wax ak yéen nan sant rek ndax boo seetee ñu tëdd ci hôpital ba te bu gën dee am man de wax dëgg yàlla ñoom ñoo ma gën te suñu borom teguñu ko nañ sant yàlla rek lu ñu yàlla dogal rek ñoo xam ne daa gën. ah sama yaay wax ji daaneel na ma loolu rafet na loolu macha allah kon na ñëpp sant yàlla delloo xel ci yàlla jërëjëf kon. waa kon ñoo ngi fii ci palaasu Mamor Jaxate macha allah di commerçant bu mag ci Touba marché Ocass dama koy laaj mu dundee maanaam mbir mi corona bi ak marché bi période bi nga xam ni xew yi da daan bari lool macha allah nit ñi di jënd ba ba mel ni koor léegi moom nu mu ko dundee sëñ Mamor ñu ngi leen nuyu. ah ñu ngi lay fay. ñu ngi lay ziar bu baax. noo gisee mbir yi ak euh, heure bi xew yi ni mu daan bari ak ni ngeen daan jaaye macha allah yow noo gisee mbir mi. waaw mbir mi dama li nekk si àdduna bi yëpp moo nekk si dëkk bi rek moom ku fiy dund rek xam nga ne moom muy Touba muy faneen dara doxul fi mu ne nii xanaa sant yàlla rek waaw xanaa di ñaan li fi xew-xew li mu jeex ak jàmm ak salaam rek ñun ñëpp ñu delluwaat si jàmm ak ñu delluwaat si activités yi. yow période bi xanaa daan ngeen daan ngeen xëy macha allah di yëg seen bopp bu baax comme bu ñuy waaj a koor xam ngeen ne xew yi day bari takk yi di bari ngeen di jaay ci tissu waaye pour nga xëy sax léeg-léeg sama boutique bee jaay voile brodé sax nee na léeg-léeg daf lay të. waaw loolu la la të fi mu ne nii moom vraiment moom da ngay xëy toog ba ngoon nga wàcc ñibbi rek. kon ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu li la ziar jaxate kon jaajëf fa